Bienvenue sur Salam Vision. maa ngi leen di siyaar yéen itam. waaw yaa ngi am jàmm baax ba waaw maa ngi am jàmm bu baax a baax. tey ñu fekk si la fi nga xamante ni tey mooy fi ngeen nekk tey ngeen am seen bis bu ngeen di waajal tey ji lan moo waral bis bi tey. Mm-hmm. waaw bis bi boo ko gisee ah, dama ñëw pour gunge ci ki nga xam ne sama doomu ndey la di sama xarit di suma lépp di François Ngor Emmanuel Ndaw ah, déposé candidature am fii ci mairie ji de Thiaroye Kaw di jongante ah, ma koy ci ñaanal yàlla ndam mu am ci ndam lu yaa. incha allah au soir du 23 janvier donc dañu ñëw fii tey pour euh, procéder à la remise euh, des bourses d'études parce que moom dafa nekk nit koo xam ne dafa am engagement ci communam bi nga xam ne mooy Djiddah Thiaroye Kaw alors moom ci biir euh, programme am ak ay plan d'action am mu am ci ponk bu am solo boo xam ne ci wàllu xëy ndaw yi la la jublu ak éducation ndax njàng am na solo moo tax mu bëgg leen ci accompagner Euh, jox leen ay bourse ngir ñu mën a mottali seen jàng eggali ko ci ni mu waree ak ci ni mu gënee. ok dégg naa la sa biir kàddu tey ji li nga xamante ni dafa am loo xamante tey état moo ci waroon na dugal loxoom en 100 pour cent tey moom mu ñëw tey yëkkati loolu tey ji fas yéene si dugal loxoom ngir bëgg a jàppale ndaw yi maanaam secret bi ci nekk ba tax moom mu bëgg a taxaw bëgg a dimbale njaboot gi ak li nga xamante ni incha allahu rabbi fas yéene si jëm yéen yan ban ngeen ci am carrément pour jàppale ko ci bis bi waaw taxawaayu d'abord euh, frère mbokk waaye aussi et surtout taxawaay koo xam ne dañuy ànd ak moom ci liggéey bi ci lépp loo xam ne sumb na ko euh, ci wàllu defar goxam ah et puis euh, ku ci nekk ci ñun rek euh, ca wàll bu nga féete ak ca domaine ba nga mënee ñu am lu nga xam ne dañ la ko dénk ngir nga matale ko ba mu mat pour que daal xale yi nga xamante ne ñoom la ñu war a jox lii ku ci ne ñu jox la liñ la war a jox ba nga mën a continuer sa jàng comme ni mu waree donc taxawaay bu rafet lañ ci war a am Euh, te looloo waral suñu tànk fii tey. Mhm. Euh, man maa ngi tudd Jean waaw waaw. kilifa gi ñu bon maa ngi dolli ziar. maa ngi am jàmm maa ngi am jàmm bu baax a baax sant yàlla. aha tey jii yéen a woote fii nga xamante ni tey yéen a fi taxu ngir fas yéene see jàppale ñi nga xamante ni mooy gars yi ak élèves yi ak ñëpp tey lan mooy secret. bon dafa bokk en fait ci suñu plan d'action ci suñu vision ñu jàppale ndaw yi yi nekk Djidah yi Kaw ngir ñu mën a dellu école. jàng am xam-xam ngir mën a bokk ci ñuy téye réew mi quoi. loolu moo tax ñuy jóg di xeex di sonn pour ñoom waaw jërë ngeen jëf. maanaam yaa ko wax nga ne yéen ngi xeex ngir fas yéene jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk tey maanaam secret bi nga xamante ni élèves yi léegi dañ koo manqué yéen ngeen dem ba gëstu loolu gis ko carrément taxaw ngir bëgg développé wu loolu tey ji bu yàlla ba nga xam ne loolu développé ngeen ko ba ngeen am li ngeen ci sa taxawaay ak ñooñu tey ji lan nga bëgg tey ñooñu jàppale la non c'est yi dañu amatul ñuy wax ak ñoom ñun bi ñu nekkee xale dafa am ay mag yoo xam ne référence la ñu woon ci ñun bu ñu leen gisee ñi yor seen saak di dem école dañ naan ñun par force dañu dem école mais léegi loolu amatul xale yi perte nañu repère xamatuñu fu ñuy teg seen tànk comme ñu koy waxee moo tax gars yi ñu ngi tox yàmba ñu ngi sàcc ñu ngi agressé parce que demuñu école amuñu liggéey donc loolu moo tax ñun nag dañu bëgg ñëpp dellu école am ay liggéey yu baax yu décent suñu commune mën a naat quoi loolu rek mooy suñu xeex suñu mbëbët engagement bi yëpp loolu la quoi. léegi man la wax nga ko ci biir wax. léegi génération yu bees yi léegi jukkal nañ loo xamante ni ma sa jaaxal na ma moo tux yàmba beeg comme yeneen domaine yàlla da cee am loolu maanaam ci côté parents yi la war a maanaam léegi ci éducation yi li xam ne xale ñoo ko jëlee seen bopp a maanaam ci parents yi yi am nañu ci responsabilité ñoom ñooy bàyyi xale yi duñ leen inciter xale yi rester à l'école xale nag bu amul lu mu def day ut beneen occupation man foog naa ne loolu moo waral ñuy dévier ci beneen côté bi quoi mais nit ku nekk soo sañoon nga baax mais baax bi nag doo toog toog rek baax da nga koy sabab da nga koy reyante da nga koy ñàkkante ñu ñun nous sommes des banlieusards xam nañ ñafe quoi donc il faut nga ñafe pour mën a am dara de dara yombut voilà. Nous nous très sincèrement et euh, pour ce retard accusé mais bon euh, à l'impossible nul n'est obtenu ñu ngi jégalu bu baax a baax a baax auprès de chacun de vous pour vraiment xaar quatorze bi yàgg na te ñu ngi leen ci jégalu bu baax a baax a baax a baax di leen baal rek ci loolu alors je sais que nous sommes ils sont en célébrer les fêtes de Noël et nous passons déjà aux fêtes de fin d'année. Et donc, en dire à François notre sincère reconnaissance pour ces bourses qu'ils offrent à des jeunes, c'est dire qu'ils militent pour l'éducation des jeunes, ce qui est à mon avis très important dans la vie d'une société, dans son pays, pour développer des compétences, des connaissances, parce que les jeunes ont dit c'est l'avenir de la société. Donc ces jeunes, c'est un paroissien, un parent, un ami à nous tous, avec ses collaborateurs qui fait ce geste magnifique, louable, et nous ne pouvons que l'applaudir très fort, s'il vous plaît. biir Messi. François a compris qu'en travaillant pour l'éducation, eh bien, tout simplement, il travaille pour un Sénégal prospère, un Sénégal euh, chacun a sa place, un Sénégal où tout le monde peut arriver à réussir sa vie personnelle, mais également sociétale. Alors, on fait que l'encourager, du cognac aussi, pour que li nga xam ne mu lay santu yàlla jox ko ko may ko ko Farah bon courage et que Dieu t'accompagne dans un mouvement appelé MAS, Mouvement pour la compétitivité économique mu ëmb lu bari ñu ne balaa ñuy tàmbali dara pour nga defar sa gox il faut am lu nekk sa bopp kon nañ leen gëstu ñi nga xam ne ni ñoo nekk ci école yi ci daara yi di nafar yàlla def ñu ciy dox ba am lii ñu am tey te du yem ci loolu dinañ jël volet santé dinañ jël vole économique dinañ xool mouvement des femmes dinañ xool sportif yi lépp loo xam ne ni day développer gox bi suba ba ngoon amuñu ci heure ku ñu ci woo ñu fekk la ci ku ñu ci fekk ñu dem ku ñu ci fekk ñu dem ñu ne nag loolu boo ko bëggee mottali ci lépp ñu ngi dox ay année di ci dox pour ñu mottali ko mooy lan nañ leen laaj mairie bi yàlla def ñu bokk ci benn mouvement bu ñuy wax avec avec c'est l'alliance pour la citoyenneté éthique et citoyenne léegi bi ñu duggee ci loolu ñu war a dem élection communale yi ak li ci topp yépp bu fare ñëwee dina gën a leeral ñun dara ñoruñ tey ñu dem politique ñu dem jël maire bi ñàkk jël maire bi suñu dërëm yi ñuy fortaatu dinañ ko delloo ci biir commune bi kon ñun yéen la am yéen ñi nga xam ne yéen bénéficié wu ci bourse yi ngeen xam ne njàng mi ngeen di def mooy yor réew mi déwén mooy yor réew mi suba kon képp ko ci bénéficié wu ki ci bénéficié wu góor-góorlu leen xar seen tànk tubee xam ne yéen yéen a yor dëkk bi suba nous nous avons fait notre on ne peut que vous accompagner loolu rek la ñuy def gunge leen tette leen wan leen fu ngeen di teg seen tànk ba nga xam ne suba ña nekk dakaar du ñu ñee ci dara ñun ñi nekk fii duñu ñee waa Dakar ci dara je prends l'exemple de Fara il est né dans la commune il est né dans le quartier il a fait ses études primaires dans le quartier aujourd'hui il est quelqu'un dans le pays ultérieurement temps yii di ñëw il sera incontournable dans ce pays et je la garantie que ne fii benn ñaari at di ngeen dégg ñu wax fara feneen fu dul fii ñu ñaanal ko jàppale ko loolu laa amoon loo xam ne ni maa ko ci interdit wasalaam ñëpp celle-ci habite dans le quartier de François, qui sont des amis d'enfance chez les Et donc, euh, euh, euh, euh ni Sénégal, ni Moana, Kuchi Un, événement, à nous Voilà, que ça va nous bien ici, on nous connaît bien ici pour Voilà, on est également. En tout cas, merci beaucoup, champion. Merci pour ta présence. Et salut à tous les membres de ton staff. Voilà, salut à tout mon quartier. Même aussi à Danomia. Hein, ton prochain combat, je pense que ce sera au mois de janvier. Le voilà. Maladinya aussi yang boleh macamnya. Saya ini yang yang lepas Danomia. Du prochain combat. Champion, merci beaucoup encore. Merci. Bienvenue. Alors, Soleil. Jason Gomez. Daniel Salam. Les parents de la famille. Il pourra vous expliquer nan lay demee nan lañ koy amee nan lañ koy lépp loo xam ne daal dëgg la ci bopp ñu leeral ko fi balaa ñu fi jóge nga xam ne moo fi jóge di nga xam ne ñu utilisé dëgg suñu lay toog cabinet da nga ciy yàgg parce que nous suñu cabinet bi depuis euh, trois ans on est au niveau de Guédiawaye sur la route du marché jeudi à Loubalès et on a un partenariat direct avec la ville de Guédiawaye depuis trois ans depuis on est à notre bureau bu nekk fee sur deux voies d'exercice donc ñun suñu suñu liggéey c'est vraiment dimbale apprenants yi su ma waxee apprenants yi nag du élèves yi kese bachelier yi wala euh, euh, yi y également aussi des artisans parce que yi nekk ci biir gox les électriciens les les mécaniciens entre même les lutteurs am na ay écoles yoo xam ne école de lutte parce que ñun suñ ñun euh, d'après monsieur monsieur le maire lu mu ko waxee naka yi def ba nga xam ne que dëkk bi dafa metti tey tey boo demee duggee ci biir kër yi papi yi ils doivent gérer le loyer ils doivent gérer également aussi la santé l'éducation et tout ça ce sont des très très lourds au moins tey bëgg naa leen teg jàppale leen li nga xam ne mooy éducation mooy formation professionnelle wala yaay gis bëgg na doomam et aujourd'hui du ñu xamee le coût de la vie lépp luy formation dafa cher donc su ba ma ko ba ma ko waxee mu nekk rek xam naa ne man am naa plus de quatre-vingts instituts yoo nekk fii Sénégal yoo xam ne c'est reconnu par état du Sénégal te kenn ku ci nekk wàññi na ma prix bi fi nga waree fay normalement yow boo fa demoon pour nga fay ay huit cent mille boo jaaree ci cabinet bi ay deux cent cinquante mille ngay fay te boo koy fay dana à ta convenance ni nga ko bëggee mais ce sera un engagement personnel ba ma waxee loolu nag on a ficelé aujourd'hui ce sa partenariat il a eu il a pris beaucoup de bourses nee lii daal pour sama askan ñu nekk dans ma depuis boobu nag si loolu la nekk e je pense que aujourd'hui euh, pour l'utilisation aujourd'hui de ces de ces de ces de ces yi par exemple la par exemple bourses yi kii dafa def dafa war a def génie génie civil la war a def mais bourses yi par exemple la sa veut dire que lui, il a pris en charge pendant trois ans année bi boo de boo demee boo yóbbuwee kii bi lettre de recommandation bi dans pendant trois ans boo demee da nga am réduction yow doo fay par exemple lii un génie civil boo demee boo demee IPD tu dois payer neuf cent mille mais boo demee là tu ne payes que deux te boo koy fay dal la koy allégé ça veut dire pendant trois ans il suffit seulement il suffit seulement de excusez-moi voilà boo boo leen dem il suffit seulement li ñu di la ngeen di ko photocopier rek original bi ngeen di yóbbu ci école bi ngeen di présenté photocopie yi vous la vous la gardez donc ça veut que déwén bu fekkee da ngeen bëgg euh, defal leen même les recommandations vous avez le classeur au niveau de de de équipe et tout comme ça ñoom ñu mun leen vraiment renouveler les lettres de recommandation. donc moi comme ni mu ko waxee rek depuis pratiquement trois ans on est à Guédiawaye et chaque année on fait des mu ne monsieur Mané sa programme sa m'intéresse man tey su ma nekkee maire bëgg naa jeunes yu nekk fii et tout le monde et les apprenants mooy ñëpp on a euh, fi kii kenn ñëpp nañ ci boole au moins ñu mun a bénéficier de tout ce que aujourd'hui service yi ngeen di proposer donc euh, là je vous, vraiment je vous je vous félicite d'avoir pris ces ces, actions c'est très très noble parce que euh, comme ni ñu ko waxee rek aujourd'hui demain moom sa appartient aux jeunes et je pense que pour au moins ñu mën ñu voulons orienter vers les nouveaux types de métiers et d'avenir. Parce que même aujourd'hui, dans ce choix de, dans ce choix de formation, par exemple, je ne vais pas par rapport à ces choix de carrière. Parce que pourquoi on a misé sur la banlieue et tout ça Il y a beaucoup de jeunes ici dans la banlieue, mais ils ont un choix par défaut. Et puis aujourd'hui, on a solo, on a ce diplôme pour que tu puisses trouver du travail. Tu tey expérience bu ñu am aujourd'hui à Guédiawaye avec la ville de Guédiawaye les cinq communes moi j'en suis aujourd'hui fii ak seen seen seen seen ñu amee seen licence soixante-dix pour cent voire quatre-vingts pour cent des jeunes yoo xam ne on a eu à orienter à encadrer ils trouver du travail et monsieur le François loolu la bëggal aujourd'hui askan wi aujourd'hui mais comme ni ñu ko waxee départ rek le coût de la vie est très très cher affaire bi euh, ku ci nekk affaire yi na xaw ba nga xam ne mu ne moom lu a que vraiment côté prix bi côté le coût ñu xaw ko wàññi défi boobu nag si loolu la nekk comme ni mu ko waxee sànq rek vraiment il a il a pris pratiquement beaucoup beaucoup de bourses pour au moins distribuer ça à ces jeunes qui sont aussi dans ces localités voilà merci bien s'il y a des questions si vous avez des questions yoo xam ne yéen ñii récits yi yore kii les les les bourses là comme ça au moins on en parle tout de suite et qu'on puisse avoir toutes les les mais également aussi si bourse bi da ngeen di xool ci kaw euh, si logo logo Tasnim bi yaa a suñu numéro suñu numéro contact si vous avez des difficultés ou des problèmes vous pouvez toujours nous appeler mais également tamit si si si euh, lettre recommandation yi logo bi nga xam ne école bi foofu la leen euh, orienté y a la, le numéro de téléphone du chargé des admissions donc balaa ngeen di dem da ngeen di ko woo ne que nous avons aujourd'hui une lettre de recommandation venue venant du cabinet Tasnim quelles Ok, c'est bon Il a pas de questions Où se trouve IPT. IPD. Euh, IPD trouve, le, au, au niveau des deux voies les vertices. xam nga sami bi ah, lettre de recommandation bi si tu la lettre de recommandation euh, en logo il y a le numéro de téléphone de la chargée d'admission. Ouvre, ouvre, ouvre le classeur.

C'est bon, il n'y a pas d'autres questions là les détails pour dire que cette, cette, cette action concrète pourrait être modérée il a gardé le peuple plus jeune. Le peuple pourrait garder aujourd'hui d'une première position. Le mot a été dit, mon compagnon, la lettre du prochain là, nous ne suivons pas, nous ne Donc, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas, c'est un jeune engagé. tey vraiment am na ñaan que tous les parents et les soirs là félicité ko mais comme vraiment mu nekk à la tête de la mairie de Thiaroye Kaw donc nous vous remercions. dañuy jox kàddu bi quelqu'un boo xam ne tey képp ku jël exemple mën ngaa jël exemple ci moom loolu pourquoi ñun waa maanaam bi daa am foo xam ne fa ñu dëkk il s'est combattu pour ça fii la juddoo fii la jàngee dem étude supérieure def ko à Dakar te ku jóge ci fara dara loolu ko loolu jiite dara loolu tey ay waraloon ñu ngi tukki ay almal ñu ngi tukki ay Bamako ñu ngi tukki ay plateau moom ñu ngi fii ci biir boor fii la ñu wéyoo dem Dakar liggéey ñu ngi ci ci boor bi ku ko soxla heure boo ko lawee mu wéyoo ci la ñu wéyoo ñu ngi lay laal laal ko Ousmane Ba fekk mu jàpp mu rappelé ngeen di yàq ngeen gën a góorgóorlu parce que souvent li mu wax ñoom suñu nee liggéey nañu dëkk wala en réalité mais man moom politicien donc politicien dafa am lu muy doxal ñun dafa am lu ñuy doxal politicien yi ñoom ñoom ñoo am xaalis mais dafa bokk ci des gens boo cotisé ndaxte bu ne loolu kenn gëm donc loolu ñu ne ñu gëm alors acteurs politiques yi nga xam ne ñu fi am na ñoo ne waxoon nañu ne dina ñëw yeneen dañoo am chemin ma leen dana ñaan aussi violence bi ñu jëlee président suñu ci démb maa ngi ñaaw ñi nga xam ne moo ne ci quartier yi mu ngi fële à Guédiawaye donc amoon ay ñaaw yoo xam ne lay doon suñu ndaw ñu waa Jambaar li tax ñu ko sant ñu ko gërëm may dem wax na ko léegi ñoom ñaar ñoo ko ne foofu la ko xaaral moo xam ne ko léegi lii ak maanaam ne yow ngeen def waaw parce que mooy li ñuy wax champion bi ñuy suuf bu dëgg ñu ko wala ñu ko koy ñaanal mu tënk suñu borom ak suñu barke ku xam baa ngeen ko wala ngeen ko loolu yaakaar naa ko ñu passé par jàkk bi mooy wóy bi mu bàyyi dana gis mu mën def ko fay nekk yoon ñooñu benn bi fàll lay ñu ba mu jur doom ba moom day wax waaye ñu doom ak yeneen ñu mais tey am na ko mën a amee léegi ñoo ko la doon ba président de la République wala ministre de tey jii ci biir daal moom lañ ko yi war nañoo naan ay kilifa yi diine yoo xamante ni ci biir boobu dañu mën a génne jàngale taw mag yi xam nga ni suñu kilifa yi doon te loolu mooy détermination nit day am détermination nit day am gëm-gëm te gëm-gëm ci koy yóbbu mooy da ngay am pas-pas xam ni kii laa bëgg li nga bëgg mooy lan da ngay jox jëm mën a am mairie wala nga def formation mën a am xam-xam parce que dangay gis Sénégal dangay gis dañu ne man damaa bëgg liggéey tam ñun la doo mën nga ne man dama jot baax maintenant mooy loolu dama jot baax loolu du xam-xam mais bu bëgg ñu jox la léegi nga def nga dem jàngi wala nga dem def ci formation demal def benn chaîne soo dee yaa xam mais demal nga formé wu ba am benn notion boo xam ne bu ñu la joxee liggéey boobu si baa dina ci réussir jëriñ ci sa bopp jëriñ ci ñi nga xamante ni yàlla kon man moom su may kàddu jëm mooy su may kàddu tey média baa ngi ñëpp taxaw jàkkaarloo na te ñii di jëlee ñu ko dañuy tey balaa vingt huit heures solo yàlla dina nekk àll si YouTube man maa man sa message yow boo dee yow boo dee man dañuy ñëw fekk ma ci wet man xam nga ko bu ma demee fële neexul dégg ma dëgg di ko boole moom ko jëriñ ak suñu population kon am na lu ñu fa def